ñaanal Suleymaan ñaanal njabootam fàttaliku jëfam ngir Sénégal jëm kanam fàttaliku jëfam ngir Tëngéej jëm kanam fàttaliku jëfam en tant que citoyen sénégalais jëf yi ma ci jàpp mooy ci wàllu politique suñu parti ba ci seytaani duggee dugg suñu kër nam duggee ci yeneen kër saax saaxe ko moom jóg na taxaw ak camarade nous ñu sauver la ligne ci table peu tay Modou Ndoye mu ngi toog casse Castro mu ngi tok lolu ku xam histoire Sénégal xam nga lolu amna sens donc Soleiman a contribué à camarades à sauver une œuvre politique monumentale une ligne politique dans le pays une sensibilité bo xamné ni Sénégal yépp rañé nañ lan moy LDMPT lan moy LD tay lan moy LD debout ci biir Sénégal souleyman fofu béy fi war bu mu mat sëkk ko ak camarade yépp ci wàllu liggéey wane na expertise am de stagiaire à directeur technique et financier xëy na fa togon ba sax xëy na na directeur wonna né ne xalat amna xam-xam amna capacité mën naa liggéey mën doxal ci walu éducation tabaxna université légui Tëngéej am amna université comme Lyon ni université comme Marseille ni université té je crois que université ku fa dem da nga xamné li am université dëgg la ay doomu Sénégal di fi jang ay doomu Afrique di fi jang té université bi sax dafa am ay filiales ay ay ay ay filiales ay spécialisation loolu également pour man am na solo kooku nous avons été fiers mu nekk suñu xarit nekk suñu camarade nekk suñu secrétaire général ñu bokk ak moom di dox di xeex ngir Sénégal depuis 30 ans pour ñenn ñi depuis 20 ans pour ñenn ñi kooku daal moom la ñu noonu tey nañu daje ñaanal ko fàttaliku cédé ñaanal ko yàlla xaare ko àjjal